la ak njool màkkaak ña ko dar laay tàmbalee ci mbirum si di lamin baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV bu ngeen déggee wolofal yi jëwriñ ji yëkkati mu jëm ci Serigne Bara ngeen xam ne am na lu ko waral loolu mooy lan mooy màggalub Mbacke Kajoor ki ngeen gis mu toog mooy Serigne Cheikh Mbacke ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh motiley yi mi nga xam ne leer la ci Serigne Abdou Aziz Bara moom Serigne Bara Mbacke mu mag ma kon bu ngeen gisee toogaay bi xam ne li ko waral mooy màggaluk maamam gi di màggalu Mbacke Kajoor ñu war koo def ci weer wi fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne moom lañ dëgmal mars bi nga xam ne moom la ñu dëgmal foofee ca hôtel Bawane kon nag du ñu def lu dut yëkkati kàddu yi jébbal ko ki nga xam ne mooy jëwrinu Serigne Bara Mbacké di Serigne Modou seen bu ñu ca noppee dal di jox ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Dieng mu wax programme bi nan lay tëddee. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax gannaaw bu ñu ñaanalee Serigne Mountakha moom Cheikh Ahmadou Bassirou suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko. ak njabootu Serigne Touba gépp ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Aziz Baara euh, doon suñ kilifa fii ci réew mi doon sëtub Serigne Baara Mbacke ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ginnaaw bu ñu ko ziaree ñu ngi ziare bu baax a baax it suñu bàyyi suñu waajur bàyyi Diop ñu ngi koy ziar bu baax di ziare Serigne Yankoba Gueye mi nga xam ne mooy moo fi jiite daayira Serigne Touba fii ci Argentine ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziare mbokki julli yi mbokki taalib yi ne ci réew mépp ñu ngi leen di ziare comme ni ko sëriñ Assane waxee rek su ngeen dégg su ngeen gisee jataay bi rek xam ne ñu ngi waajal màggalu Mbàkke Kajoor fas yéene ko def le 15 mars incha allah rabi dëpp bésub alxames fële ci hôtel Bawen lañ koy defee ñu ngi ciy sàkku teewaayu mbokki jullit yëpp mbokki taali bépp ñu ngi leen ci woo képp koo xam ne gis nga maanaam vidéo bi rek nga war a xam nga xam ne mooy sa invitation ñu ngi ciy eh, ñu ciy woo ñëpp di ñaan yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke soxna leen Baara Mbàkke bés bi nag maanaam jombut sëñ Abdou xam naa bu ñu ko joxee kàddu gi dina wax programme ni muy dox ni muy doxee waaye lañ ciy sox lañ ciy yokk rek mooy ñu ngi ciy woo ñëpp rek bépp bunt boo xam ne rek ci kër Sëñ Tuubaa nga bokk moo xam doomi Sëñ Tuubaa moo xam seex nga ñi moo xam foo ci bokkee rek ñi ngi woos ak njaboot ci bés bi maanaam woote bi nag bu ñu si Sëñ Yankooba rek daa tudd na ñëpp kon ku ku ku déglu kàddu xam ne maanaam mooy mooy mooy mooy sa woote ci màggal gi bu ko defee ñi ngi koy ànd Ah, suñu jëwriñ bi nga xam ne moo ne fii ci réew mi ñu koy wax sëñ Dame Cissé nga xam ne moo jiite moo jiite fédération Daara Xuddoos bi euh, nga xam ne mooy for na teew sax waaye xam naa dafa ne ci xatax di moo wax teewuñ teewuñ si kon ñu ngi koy ñu ngi ci ñu ngi ci kàddoom la ñuy waxee bu ko defee ñu ngi ci woo ñëpp rek képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah ñu ngi leen ci ci woo a baax it suñu mbokk tijaan yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp di ci woo julit ñëpp fan ko daa defee rek lañ ko def muy ci hôtel ba xam naa jëmbut li jëm ci wàllu programme bi Euh, Serigne Abdou Dieng bu bu ñu ko joxee kàddu gi dina wax programme ni ni muy demee waaye daal ñu ngi ciy sàkku teewaay jullit yëpp yëpp ñaan yàlla nañu ci yàlla yóbbu jàmm barke bi soxla leen baara Mbàkke aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi gannaaw ba ngeen gisee jataay bi nga xam ne tey moom lañ toog nii euh, jàkkaarloog sunu kilifa gi nga xam ne tey mooy Serigne Cheikh Mbacke euh, ibnu Cheikh mo euh, ibnu Serigne Abdou Assis Bara ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér jataay bi nag bu ngeen ko gisee mooy ñu ngi dëgmal bës bu nga xam ne tey bésub Serigne Touba waaye bésub Cheikh Mouhamadou Amine Bara mi nga xam ne tey ñu ngi ko fas yéene amal le 15 mars incha allahu rabbi comme ni ko jëwri ni waxee gannaaw lool rek xanaa ñu fas yéene jàllal programme bi nga xam ne tey moom lañ fas yéene amal sa bés ba incha allahu rabbi bu ñu xëyee fas yéene ne jàng arxuraan ak incha allahu rabbi ba deux heures jot bu deux heures jotee bu soobee yàlla bu ba xewloo ba noppi fas yéene nanoo jàng mi xasida yi durus incha allahu rabbi ba tàkkusaan bu tàkkusaan jotee kuréel yi kuréeli xasida yi sëñ yi nga xam ne tey ñoom ñooy yëngal suñuy deret fas yéene nanoo yëkkati incha allahu rabbi ak ñi nga xam ne tey ñooy rajo skat yi nga xam ne tey ñoo yëkkati si xasida sëñ Tuubaa yi ñu ngi siy woo kenn di ñaan nag saa borom wa taala àggali nu saa lépp luñ si ñaan saa borom nangul nu ko barkeb Cheikh Moustapha gannaaw loolu nag ni ko jëriñu waxee rek ñu ngi siy woo mbooleem taalibe sëñ Tuubaa yi waaye di si woo mbooleem jullit yi rawatina suñ mbokk yi nga xam ne tey ñoom lañ bokkal si réew mi di suñ mbokki tijaan yi bàyyiwul leen benn yoon ndax ñoo ñoo ñoom ñoo bokk diina ji ñu ngi leen si wow bu baax a baax di tallal loxo ñëpp rek képp koo xam ne taalibeb sëñ Tuubaa nga xamal ne sëriñ bi nga xam ne tey moom la fi toogal di sëriñ Seex Mati Lay mi ngi si woo ñëpp si ndigalam nag la ñuy waxee si lépp nag ñun ñi nga xam ne tey ñooy donge yi jàkkaarloo yéen di leen woonal da ngeen xam ne si ndigalam la ñoon nag ñu ngi si woo ñëpp di ñaan saa borom subhaanahu wa taala àggale na saa jàmm barkeb Seex Mustafaa kon du ñu def lu dul jox kilifa jataay gi muy sëriñ Cheikh Mbàkke bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a rafet mu di nuyoo islaam te asalaamaaleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo boobu sunu kilifa sëriñ Muntaxa Muhammad Seex moom Seex sëriñ Tuuba di tooge jataayub Seexul Xadim si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul te mat ko sëkk di ñaan yàlla sunu borom mi xam ne dara tëwu ko yàlla ko fi yàggal lool ba lim am ci yéene liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa lépp mu am kattanal ko ba mu mën koo def ni mu ko bëggee dañ ànd kook moom ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ah, bu loolu weesoo ñu ngi nuyu njabootu yoon murit gépp di leen massawu sunu kilifa gi nga xam ni moom la ñu ñàkk ci jamono yi ñu génn mu di Cheikh Sidiyal Muxtaar di ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram te taas ci ay barkeem yàlla xare ko ci àjjana ya gën a kawee ci barke maam ju baax ja si Ahmadou Bamba xaadim rasul moom de li ko waroon lépp def na ko wax dëgg yàlla kon ñun ñii fi des ñoo ci des waaye sëriñ bi moom na sëkk li ko waroon lépp def na ko ah, ñu am mbégte toogaay toogat fii janoog mbokki taalibe yi ah, janoog mbokki jullit yi am xew-xew boo xam ni moo xew mu di bis mbàggalu Mbàkke Kajoor ñu di ko waajal fii ci Argentine mu dëppook le 15 mars bii nu jëm bu neexee yàlla incha allah yàlla nañ ko fekkee jàmm euh, di ci woo mbokki taalibe yépp nag di ci woo mbokki jullit yépp it nag ndax bis boobu mooy sunu bis mooy bis bi nga xam ni ñun moo nu boole ci sëriñ tubaa ndax bis la boo xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke gane àdduna ca Mbàkke Kajoor ñu koy fàttaliku di ko ci ñaanal di ñaan yàlla mu taasuñ ci ay barkeem te lépp luñ ci ñaan yàlla nangu ko ci barkeem si Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul euh, sëriñ Baara moomu nag ah ku mat a màggal la ndax bisam boobu bi nga xamee ni yaakaar naa ni la ca xewoon lépp ah ñu bari ci mbokki taalibe yi xam nañ ko mooy ngërëm yu mag yooyu nga xam ni sunu borom. yàlla dogal naa ci bis boobu la ko Serigne Touba joxe mag ña lu demee ni maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ak Serigne Dame Abdourahmane Lo ak sëñ Mandumbe Xabbaan mag ñooñu nga xam ne ñooy taalibe yi Serigne Touba yu mag yi ci bis boobu lañu ñu amee woon seen ngërëm kon ñu ci woo mbokki taalibe yëpp di ci woo mbokki jullit yëpp ah nag moo am loo xam ne da cee bees muy dëppoog bis boo xam ne maanaam Cheikh Sidil Muxtaar ku ne xam naa ne bi mu dëddoo jaam ñi yàggul ñu amoon yéene nag jagleel ko bis bi ren jii fas yéene ñaanal ko ci di sàkku bépp taalibe bu nekk fii ci réew mi ci Argentine wala li ko wër fépp fub daayira ne ci réew mi tamit ñu ngi la ci woo ñu ànd teew ci bis boobu ñaanalal nu sunu wajur woowu nga xam ne moom la nu ñàkk mu doon koo xam ni ah wax dëgg yàlla umma islam gépp a ko ñàkk ñu fas yéene ko cee ñaanal di ñaan yàlla mu yokk ay leeram te taas ci ay barkeem kon daal bis boobu ren sëñ Sidil Maxtaar yàlla na ko yàlla dolli leer moom lañ ko jagreel di ci woo jullit ñëpp nag di ci woo taalibe yi sëñ Tuubaa yëpp xaj amut xaj amut seen di ci woo nag waa fédération daayira yi nga xam ñoo tënku ci fédération daayira murid yi nga xam ñoo ne fii ci Argentine te njiit la di sëriñ Yankoba Gueye ñu ngi leen ci woo Ah, bu ñu tuddee fédération bi rek képp koo xam daal tënku nga ci fédération bi woo nañ la ci képp ku ci tënku tamit tey taalibe Sëñ Tuubaa bu nekk ci réew mi ñu ngi lay woo ci bis boobu ah, di ci woo sunu mbokki taalibe seex yi nga xam nekk fii ci réew muy daayira tijaan yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi te sunu ànd yàgg rafet lool wax dëgg yàlla noon day wax dëgg yàlla amuñu xaj ak seen ndax lislaam benn la te ñoo ko bokk kon ñu ngi ci woo waa daayira tijaan yëpp di ci woo nag euh, ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi ren jii mu amuk coppiku sëñ mat seen mii di jëwriñu daayira Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké te wax dëgg yàlla li ko war lépp mu di ko ci def taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ban ko dalee def nga xam ban koy tàmbali ci mu nekk lañ ko tàmbalee woon ba tey mu yaatu lool ah ren nag ñu bëgg cee yeesal muy fédération bi nga xam ne mooy daayira Cheikh Moustapha al Karim te kenn umpalewut sëñ Moudou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké Ah, ñoom ñaar ñoo bokk lépp ñoo bokk sëñ Touba ah, ba pare doonaat ay sëñ Touba kon duñ ñaar kenn lañu muy Cheikh Moustapha al Karim ak Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacké ah, ñuy ci njiital fédération bi nag di seen Dame Cissé ñu teg organisation bi ren lépp ci seen loxo teg nañ lépp ci seen loxo waa fédération Daaru Xuddos Guy Mbind mu doon loo xam ne te lañ ci am am ci cofeel am ci loo xam ne daal kawe na suñ jot ndax loolu mooy li nga xam ne moo gënal sëriñ bi booloo rek moo baax kon ci mbooloo gi yàlla nañ ci Sëriñ Tuubaa defal lu kawee suñuy njort ah, bu loolu weesoo kon xam naa dañuy gàttal kàddu yi rek ah, soññe bi daal mooy loolu liñ ci soxla nag mooy taxsimuhu bi sunnati rek ñu màggal ko ci sunna teg ko ci charia ah, comme li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane jàngal xuraan ak xasiida sikrullah ak euh, euh, julli ak salaatu ala bi lu ci waay man rek nga ñaanal ñu ci dimbali ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara suñu borom yokk ay leeram ndax bis bi de bisum ñaan la te am nañ yaakaar ci ni lépp lu ci waay ñaan suñu borom dana la ko defal am nañ ci yaakaar bu wér a wér a wér ndax sëñ Bara xam nañ kan mooy Cheikh Mouhamadou Lamine faj ajo moo ca gën a gaaw faj aajo moo ca gën a gaaw kon yàlla faj suñuy ajo waaw ku jubóog boromam la Cheikh Mouhamadou Lamine ku jubóog boromam la dañuy ñaan ci bisam biral képp koo xam ne sonn nga ci ah yàlla na la ci sëñ Tuubaa defal lu kawe sa njort ci barkeb si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ah sëñ Sidi Diouf nag dana fa nekk ak waa tuubaa Touba yi Argentine ah danañ di ngeen man di eh, seetaan lépp ci tele bi bu ko bu ci yàlla àndee kon ñi ngi gërëm ñi nga xam ñoo yor télé Touba Argentine yi di sëriñ Góora ak ñi nga àndal ñëpp rek ci liggéey bi ñu rafetlu seen taxawaay ndax bu Argentine feeñee tey jii ci réew mi. ci ba Sénégal gépp mën a xam Argentine daanaka bokk ngeen ñi ko gën a lancé kon nag yàlla leen yàlla fay yàlla kattanal leen ba li ngeen yéen liggéey liggéeyal sëñ lépp ngeen am kattanu man koo def ni ngeen ko bëggee asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi yéen a dégg kàddu yi am solo yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko jëmale ko ci mbooloo mi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi ak ñu toogul ci jataay bi ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan Touba Argentine TV kon nag du ñu leen def lu dul di leen jox dox daje ba keroog ca bës ba rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mooy turandoo xayru xalqulaahi sayidina salla alayhi la si abda sëriñ baara